ربنا يا ربنا دفع الرحمة بجاه خير العالمين المدرمين ثم بيوم رمضان ناسمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم يا الله يا رحمن يا رحيم أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi nuyuwaat ñëpp di siyaar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak tawféex di ko sàkku ci yéen di ñaanal ñi nga xam ne ñoo waral bis bi tey di way dawlu yi yàlla suñu borom yërëm leen yàlla jéggal leen oyofal suuf seen kaw fi ñu nekk gën ñu jógee te lépp lu ñu fi jàng yàlla suñu borom jotale ci yool bi waa ci yërmande ci seen kaw ñun nag dañuy am cant ak ngërëm boo xam ne dañ koy beral suñu baay suñu jëwrin suñu sëriñ Cheikh Alla Cissé mi taxaw ndaxte fierté la ci suñu jëmm fierté la ci armeelu pikin fierté la ci euh, Pikine yëpp ak yeneen gox yu dul pikin ndax fii armeelu Pikine la waaye armeelu Pikine Pikine kese ñu fi seeni néew fu ne la doomu aadama di jóge ñu leen indi fii kon moom ñëpp la fi toogal te toogaayam bi fi ci barab yi toogaay la boo xam ne képp ku fi ñëw xamoon barab yi démb xamaat ko tey xam nga ne yokkute am na fi yokkute googu nag ci xol lay tàmbalee ndax bu sa xol yaatoo li ngay def mu nekk loo xam ne lu dëggu la ci sa jëmm nga am yéene suñ borom moom mooy feeñal sa yéene saa su nekk yéene jooju nag wane na wane wu na fépp képp ku ñëw fi rek xam nga ne fii am na yokkute ndaxte damay dox ci mbedd nit woo ma ne ma góor gi nekk ci armeel yi damay gis ay vidéo am xam naa ko waaye ñu ngi koy ñaanal ndaxte ku fa ñëw rek dina seet ndax xam nga ne armeel yi am na yokkute kon ñi ngi ñaanal góor bu baax a baax kon nag loolu nit ñi gis la moo tax ñu di ko wax waa kon ñu ngi sant bu baax di ko ñaanal taxawaayam di gërëm tamit waa ëxlu Baye Fall City ànd taxawu barab bu way daw yi di ay gor ay jàmbaar mhm. ay góor yàlla ay soxna yoo xam ne ndeysaan dañuy daw sama yaram man mhm. ndaxte dañoo jóg àndandoo jël seen yitte yëpp jëmale ko ci barab bi man nee naa leen man duma ci dara ndax man mënuma jàmb lottu laa kenn mënul jàmbaar amul kuñ dimbale moo am ndaxte li la suñ borom may xañ na ko sa moroom yàlla moo ñu may dund may ñu wér may ñu ay cër teg ci am xel moo ne lim ñu may am na ñu ko xañ ñoo xam ne defuñu ko dara ñun defaluñ ko dara kon bu ci tegee jël xalaat def ko suñu xel jaarale ko suñu gémmiñ ñu wax ko ay doomu aadama dégg ko rafetlu ko ànd ci ak ñun lépp moom la doomu aadama yi nag dañuy gis Baye Fall City waaye ñu nekk ci ëxlu bi ñoom ñoo gën a am Pastef Baye Fall City ñoo ko gën a bëgg li nga xam ne tey mooy liggéeyu armeel yi ndax 6 heures du matin ku koy yeewu bàyyi sa lépp te yemale woo sa liggéey ci benn armeel armeeloo armeel boo yëgee seen yitte yaa ngi jóg taxaw dem fexe ba yitte joojee noo ne maanaam mu sotti mbayum armeel ñu ngi ci armeel yu manqué ay bërigo yu manqué ay satala jumtuwaay yu armeel yitte woo bu ko ëxlu bi yëgee jóg nañ bàyyi seen lépp taxaw ci ba loolu mat kon dama leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di gërëm tamit waa front sama suuf ma yokk sama armeel ndaxte tey lu waay di yokk ak lu mu mën a doon yokk lii moo ko ëpp farata fop moo ko gën a foor ndax fii la titre foncier bi nekk fii mooy kërug dëgg fii la ñëpp di mujjee fii la ñu jëm si ndax ñii tey tëddaayu gor lañu tëdd ay jàmbaar lañ ay gor la ñoom ñoo nekk ci dëgg ñoom ñoo nekk ci caaxaan lii suñu ginnaaw di kër yi ñoom ñoo ko def bàyyi ko fi kon bari le taxul nga dem teewulaa dem lu fi waay maanaam ak lu mën a doon na nga xam ne fii mooy dëgg amul li nga ma def amul li nga ma wax amul maa moom fii yaa ngi tëdd te lu la waaye déy du senn ku la sotti ndox mu tàng doo wokkatu kon fii mooy dëgg kon nag bu ñu xeexee tey waa front sama suuf ma yokk sama armeel ba ñu yokk armeel yi te xam ne lu yàlla la dañ leen di sant bu baax di leen gërëm di leen wax ne am nañ ndam amati nañ ndam di ñaanal tamit suñu grand bi nga xam ne tey moom mooy Vieux Bara bu Seras mention spéciale dañ koy beral cant ak ngërëm ndaxte jàmbaar la ci ëxlu bi jàmbaar la ci ëxlu man dama koy xool ndeysaan sama yaram day daw ndaxte da ngay nekk nekk mag am lu la war ci sa biir njaboot te boo jóg boo jógee gis yu mel nii ci bare bi yow du doo ko yemale ci sa jëmm gox ba nga nekk di fa yëngu yaa ngay woote ña nga xam ne say mbokki jullit leen di say mbokki taalibe yaa ngi leen di soññ jóg leen ñu dem ku am sa ñaar indil ku am sa juróom indil ndax foofu ñuy jëf yàlla moo koy fay loolu ku baax rek moo ko man te moom yamalewul sax ci ñëw ak ñëw ak alalam ñëw ak dooleem mais ay otoom lay taal def ci essence indi ay otoom indi ak njabootam ñëw taxaw armeelu armeelu Béthio Ndakaaru bañ ko tàmbalee ba nu mu jeexee tàggoowul ak ñun benn yoon kon ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax di ko sant di ko gërëm di ñaanal tamit suñu papa Cheikh Omar Tall mi nga xam ne moo initié tey ñaanu way daw lii ndax li may wax rek am na ci loo loo gis lu nekk am ku ci nekk sa cër la cëru boroom boroom a koy doxal nit yor nay milliard bëgg xalaat lu mel nii waaye suñu borom jaarale ko ci xelam ngir mu xalaat ko bëgg def taxul a def mais jagleeg borom bi la. suñ borom xëy na moom moo ko jagleel tey ñaanu way daw luy ñu di ko def ba tey mu demee nii ñun nag suñu yitte barab yi la lépp loo xam ne tey gis nañ ko nit di ko def jëmale ko ci barab yi li ñu suñu yitte mooy ñun ñu jóg taxaw ci loolu ngir mu yokk ndax ñun xëcc wuñ jëm feneen fii suñu borom moo ñu ko nattoo ñu ci xool mere ñu man yàlla moo a nattoo barab yi nattoo ma way dawlu yi ku ma xool ci ñoom danga may mere barke alxuraan kon képp ku ma gis ngay dox ji jëmale si ñoom lépp loo xam ne tey sama yitteel dama koy bàyyi ñëw taxaw ci ndax ñoom ñii man ñoom laa am man ñoom rek laa am sama biir xol ci la ñu nekk yàlla xam na li nëbb xam ne li feeñ ku dee ak sa bàmmeel billaahi wallaahi taalaahi ñoom dañoo sori ci sama xol lool lool lool jëf ju baax nag yombut jaayante lay àndal ndax di nga dégg lu ne di nga gis lu ne waaye nag da ngay muñ rek gumba lu te xam ne gën gi mbindeef moo ñu gën fop te màkka la màkka la feeñe waaye fa la te ay mbokki boppam ñoo ko doon xeex ngir mu jóge màkka waaye nag lu xaq walaw kaana ran yàlla dëgg rek la bëgg dëgg jooju nga xam ne tey ci la tax tegoon tànkam moo waral tey ku ne yonent bi nga ne sallallahu alayhi wa sallam kon suñu borom nangu na ay jëfam suñu maam yi baax yi waxi noppi kon bu ñu nekkee ci loo xam ne tey am nañ ci yaakaar suñu diggante suñu borom lu ñu a dégg ak lu mu mën a doon dañuy jël te xam ne ñun ñoo bëgg fayeeg borom bi ñi ngi ñaanal ñëpp nag di jaajëfal ñëpp di ñaanal tamit waa Ngalam TV ñu ngi leen ndaxte ay jàmbaar ngeen saa yoo xamee ne ak laayit waa laayit Ngalam TV saa yoo xamee ne armée am na yitte suñ gëstoo gis leen ngeen taxaw ci feeñal ci seen yéene ba mu mat sëkk war ngeen ne daal yéen fi nga xam ne tey fi la seen doole nekk ci ngeen mën a indi seen participation te nii rek la gis lu baax nga ñëw wane ko ba ñëpp jariñoo ko loolu maanaam loolu tawféexi borom bi la kon ñu ngi leen di ñaanal mu nekk ay tele yu télé yu mag comme télé yëpp ci kàttanu borom bi ndax bu ko nekkee rek la ko nekkal ñu ngi leen di jaajëfal di wàcc suñuy di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam jërë ngeen jëf